بسم الإله فيني القدار يا الله سفي البقاء به lii fii man la seen mbokku taalibe soxna Rama Diouf bu socialu Touba ca kanam USA ñu ñi ngi woo mbokku taalibe yépp rawatina mbokku jullit yi ci bés bu ñuy dëgmal muy waajal social ramadan bu ñuy amal at bu jot si njiital sunu jëwriñ sëriñ Murtada Mbàkke mu sëriñ Abdou Fatah mu sëriñ Fallou Mbàkke muy bisu dimbalante bu ñuy dogu ci ab jaayante lu waay am lu waay mën ñu ngir ñu jàppale sunu mbokku taalibe yi sa Touba ci weeru koor gi daaw jàppale woon nañu juróomi téeméeri famille ren ñuy ñaan yàlla Euh, li ñu defoon daaw def lu ko ëpp kon ñi ngi siy woo ñëpp rawatina fii ci États-Unis si njiitu suñu président Serigne Soin bu Seck ak jëwriñ Serigne Massey Ndiir ak coordinatrice soxna Dikel Thiaw bu kenn xeem bu kenn yéem lu waay am lu waay mën ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci social Touba ca kanam Nouril Daarayni muy jaamu yàlla si jaamu yàlla yi safin baqa abi lii fi ka yàlla